lu mel ni suñu épisode 4 bi am na luñ ci tàmbali woon benn xista boo xamante si nii ca fin ba amoon nañ benn leçon de morale bu ñu ci mën a tiré muy bi ñuy wax ci diggante sayyidatuna Fatima ak Aïcha radiyallahu anhuma ak sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni kon fu foofu ñu terminé woon rek ci épisode 4 bi foofu am na ci borom xam-xam yoo xam ne basé wu nañ ci loola ba wax ni sax ñu bëri alquran ci weeru koor ñaari yoon lañ ko ci jàng ñaari yoon lañ ko ci wàcc daal ngir ni yonent bi sallallahu alayhi wa ñaari yoon la ko la ko Seydina Jibril doon téyeloon la ko Seydina Jibril ci at moom mooy at mi nga xam ne ci la génnee àdduna tam ko doon nettali doomam kon ba am na ñoo xam ne ci loolu lañ topp ba tey nga xam ne saa bu weer koor bi ñëwee moom biir weer bi ñaari yoon lañ ci wàcc Alxuraan bu mel ni itam kon loola itam ab jàngat la boo xam ne day permettre nit ñi ñu xam ne kon Alxuraan ñu xam ne weer wi lu tedd tedd lu tedd tedd la ndax comme alxuraan moom moom mooy nday téere yëpp te itam moo ëpp solo lépp lépp lépp ci àdduna mi ngi ci moom bépp weer woo xam si ne suñu borom tànn na ko ci wàcc ko ci rek loolu war naa tax ñu fonk ko bu baax a baax a baax a baax kon nag weer yi mën nañoo wax ni chahru rahmati la wal li ci daje yëpp ba tax nit ñi war koo gën a fonk bu baax a baax bari na waaye nag loolu rek jar na ko kon nañ xam ne yéen ñi nga xam ne yéen ñu bàyyi xel nga xam ne weer yi moom eh, xeet jàmm yàlla yëpp baax na ci waaye nag li ci gën te mooy jàng alxuraan ndax weer yi moom ويروا القران كون نك ني لين جوخات دي داجي ريك سين ابيزود 6 ان شاء الله ربي دين واخ والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته